ñu bind ko di ko ndokkeel ci ñibbisi ga wala moom ci bopp mu bind dégle ne ñibbisi naa wala feet guy bëgg a am ñu bind di ko yëgle wala ceet guy bëgg a am ba tey mes naa bind di ko yëgle wala ku musiba daloon te mu mucc ca mbaa ku tawatoon te wér mbaa kuñ yokkal garaat mbaa daal lam doon yëngutu da caa dolli ku jëm ca kaw yépp mën naa bind di ko yëgle mën nañ koo bind di ko ca ndokkeel wala ku ñëw defal ak xéewle di ki takkal ko médaille mbaa daal xeeti xéewle yu bari yi mën nañ ko bind di ko ca ndokkeel moom itam mën naa bind di ko yëgle mbaa mu bind ko ko defal xéewal gi di ko sant nag tubuxaa danoonu bind bataaxel ba lil mu asaati ngir dimbalee dañ koy wax dimbalee waaye daañu ko wax itam jubli ci ngir dëfal rek bi munaasabati xasaaratin ci occasion perte fii tijaaratin ci am commerce aw suqootin wala daanu fim tihaanin ci examen awil wuqooxi wala ngir tàbbi fii marodin ci tawat kadalika naka noonee li taasiyati ngir jaale bi wafaati ahadil astiqaa yi ci faatu kenn ca xarit ya wal aqribaay ak jegeñaale ya li talabi tijaaratin ak ngir sàkku commerce aw markasin wala poste markas daañu ko wax centre ci ay béréb lil xusooli ak ngir am xalaa ruxsatin ci autorisation aw tasrihin wala déclaration ba tey tasrihu dana firi autorisation aw xalaa samaahin wala ci permis mu ne yi tax ñu bind leetar moom ba tey rek dañ koy wàññi mu bari lool dees na bind leetar ngir lu xew loo xam ne neexut mu ne ku doon commerce perte wala ku doon def examen par jàllut wala ku jekki-jekki rek tawat tawat ji bette wala boog am ku faatu ci ay xaritam wala ci ay mbokkam mu bind di ko jaale ba tey daañu bind leetar ngir bëgg damaanu commerce wala bëgg poste wala bëgg permis wala bëgg autorisation ak yu mel ne yooyu kay fa naka tubu naka la ñuy bindee ar risalata leetar nabda u danañ tàmbali kitaabatar risalati bind leetar ba bi zikri taarixeha ci tudd datam ba wa makaani irsaaliha ak palaasub yónneem ga wa dalika loolee fi saawiyeti nekk na ci koñ ba wala côté ba al yusra bay càmmooñ alxuriya ba gën a kawe day bëgg a wax nan la ñuy binde bataaxel mu ne li ñuy njëkk a def mooy bind datu bataaxel bi maanaam bis bi nga koy binde nu mu toll ca weer wa boo noppee teg ca itam at ma bindaale it béréb bi nga xam ne fi nga nekk di fi binde bataaxel bi nga xam ne foofu la bataaxel bi bàyyi ko loolu nag da ngay seet ca kaw li kaw ci wetu càmmooñ ga fa ngay bind loolu inkaana dem nekk na as sax su jëmm ja al mursalu ka di kuñ yónnee ilayhi jëme ci moom min darajati naa di bokk ci sunu classe si nan ci tolluwaayu at wa xilman ak ci tolluwaayu xam-xam nu xaatibuhu danañ wàqanteeg moom bi kalimati xasiisi ci baatub xasiisi yow ku foor ki ci man aw sadiqi wala sadiqi yow sama xarit sadiqi aw axi wala axi yow sama mbokk ama ida kaana ndaal dem nekk na daa maqaamin di borom maqaama arfaxa bu gën a yëkkatiku min maqaami naa ci sunu maqaama fanu xaatibuhu danañ wàqanteeg moom bi kalimati sayidi ci baatub sayidi yow sama sang aw xadratal fadil wala xadratal fadil xadara baat la bu ñuy wax ngir màggal ba xadal taalik gannaaw loolee nag nab daw danu jëkke bi taxiyati ca nuyoo ba mu ne bu fekkee ne ki ni jëmale leetar bi su moroom rekk la ci tolluwaayu at yi ak ci tolluwaayu xam-xam ak yu demee noonu mënees naa tàmbalee xasiis yi wala sadiq yi wala ax yi su fekkee kooku nag moonu féete kaw maqaama kilifa la gu ñu dara jaal mbaa daal moom moonu féete kaw moom mu féete ko suuf kon nu tàmbalee sayid yi wala xadaratal fadil gannaaw ba nag nu door a indi ab nuyoo teg ca ida kun naa ndem nekkoon nanu xadd tasallam naa di jot risalatan bataaxel mi ne sax si tukkee ci jëmm ja al mursali ka di ko yónnee ilahi jëm ci moom fa inna naa naka nun noolimuhoo danañu ko yëgal xan tasallumi risalati wal si jot bataaxel ba waxan shukrina ak wal sunu cant la ñeel ko wanu jiibuhoo te nu koy tontu xalaa mataalibihi ci ay càkkuteefam su fekkee kooka danoo bindoon bataaxel ban jot ca nga xam ne kon bii tont lay doon dañ ko ci yëgal ne ko jot nanu sa bataaxel ba noo ngi la ciy sant seet nag la mu waxan ca biir lu ca yell ñu tontoo ko noona bu dee ay damaan ñu wax ko la ca xew lu mu doon daal ñu wax ko la ca xew ida ta axara ndeem yeex na fii murasalatina ci bindanteeg nun fii murasalatina wala muy jub naa te tontuwoonu xan risalet nu walis ab bataaxel wajjëx naaxaa bopp jubale woon nañ ko ilahi jëme ci moom no aatibuhoo kon danañu ko yedd bi lutfin ci ñëwante wa adabin ak teggin su fekkee dañ ko bindoon nag nun tam yeex a tontu kon buñ koy bindaat nii dañ koy xaw a yeddaale ndànk rek wan ko ne ko bindoon nañ la waxtu sàngam bu yàgg ba léegi te tontu woonu te bañ a ëppal nag ci yedd ga axiiran ci ak mucc nan taqilu danañu toxu ila mawduhi risalati jëm ci temu bataaxel ba fa naktubuhu te nu koy bind kama law annana donte naka nun rek naktubu dana nu bind mawduhan ab tem inshaiyan bu ko jug compo xaasan buy spécial wala xaasan buy aji ràññiku walakin waaye bixtisaarin ànd ku gàttal tuma nun hi topp dana nu àggale ar risalata bataaxel ba bi izhaari shuhuri ci feeñal yëgg wa tamaniyaati ak mébét ya lañuy mujj mooy wax la tax leetar bi jóg ndegam buñ ko bindee tam yeex noo tontu xaw nañ koo yeddaale ci yeex gaa tontu bu fekkee moonu bindoon tàmbalee nanu wax ko ne ko jot nañu bataaxel ba sant ko ca kon nag léegi nan wax la tax leetar bi jóg te wax ko waxin wu leer rek mel ne boo toogoon ci école bi maître bi ne la bindal ci tem sàngam ay wax rek na nga cay waxee wax yu leer yu jub rek noonu la ñuy bindee leetar bi te nag gàttal bañ a guddal ndax bañ a jeexal waxtu yàgg-yàgg ci sunu wet ak ci moom mooy jot bataaxel bi guddaay boobu moom ngaañ la ci kii bind ak kañ ko jëmale bu nemee ba ci mujj ga nag daan ko faral di daaneele wax ko mun ko fonke ak sunu cofeel ak sunu nammeel mébétal ko it yàlla may ko wér ak jàmm ak yi demee noonu kem daal ya nga xam ne bëgg-bëggam la bëgg na kooko mébétal kooko ñaanal الشعر وحب دنا صوب الرسائل بتاخليا القصيرة أجغات لا أذكر دم تدو فضلكة أبصمير في أول الرسالة تنجل بين بتاخل با أدخل دم يدقرك أدخل في الموضوع تتنبا مباشرة ديركتما لا أتملق دم ñamasle duma feñal lu ëpp ci ciofel mbalu koy nuru dil mursali ñeel kañ yonne ilahi jëm ci mom uraax yi dana sàmmonteeg jaanibal mawdooxi wàllu tem ba fi ibaaraat yi ci samay waxin mu ne daal li ma yëg te man ko wax ñuy dégg daal mooy man lettre yu gàtt yi moom laa gën a taamu bëgguma lettre yu guddi yi duma jéem itam di def ab sommaire mel ni ab muqaddima ci njëlbeenu bataaxel bi door a wàcc mel ne ku bëgg a faram-fànce sommaire bi déedéet damay jekki-jekki rek jëm ca laa bëgg a wax daal koy wax fi saasa génn ci du ma jekki di wantam nag ki may bind leetar bi xeetu mbëggeel ak yu demee noonu yoo xam nekkul ci man danaa seeti nag tem ba nga xam ne ci laay bind ma sàmmonteeg moom ba wax yi nii nga xam ne moom laay wax yelloog tem ba ndax xam nga leetaru ndokkeel wax yi nii wërtee mag leetaru jaal moo tax mu ne kon danaa sàmmonteeg tem ba may bind tem ba tax may bind danaa ci seet baat yaay wax dëppoonteeg moom mu jàll si ci at tawsiyan tamhidun mahabbatuka liwalidika almuhajiri wa xawaatifika naxwaho walidi alxasis su fekkoon ne sa baay dafa gàddaayoo nekk ci meneen réew nga bëgg ko wax nag noo ko soppe ak li nga yëg ci sa biir ci xeetu sentiment loolu mooy njëkk nga tàmbalee ci yow sama waajur wu foor wi laa taxtaqid bul fas ni an yi naka man min ansaari ulaayka maa ngi bokk ci partisan yi ña nga xam ne ëllësina ñooy gaa ya nga xam ne nga boole itam baat yi ne min ansaari ulaayka ëllësina maa ngi bokk ci partisan yi ñooñee nga xam ne yaquluuna danañu wax ne albaidu aji sori ja anil ay ni walis bët tan saaxu da koy fàtte alxuloo bu xol ya bal aa xal xag si ca safaan ba kay lay wax fa anaaman min alladina maa ngi bokk ci ña nga xam ne yuxiitoona danañu wër aba ahum seeni baay bi xulubihim ci seeni xol ba ay diina kaanu moo xam nekk nañu ba ay diina di way sori am xaribiina wala ñu di way jege da ko njëkk ne ko bul defee damaa bokk ci gaa yi jàpp ne moom wax ji lu wër la wax ji mooy ku xës soli sa bët rek sa xol fàtte ko mu ne ko jooju wax bokkuma ci ñi koy dëggal man kay safaan ba laay wax damay wax ne koo sopp dëgg-dëgg bu la soree nga koy gën a xalaat moo tax mu ne ko maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañuy fonk seeni baay fu ñu toll seen xol ak seen xel nekk ci seen baay moo xam nag seeni waajur dañoo jege am dañoo sori awalan nag sababu kitaabatika li haadihi risala shawquka li walidika algaayatu min safarihi ila al mahjar day bëgg a wax ci dog bi ci topp li tax nga bind ko lettre bi ak wax na ko namme moom sa waajur ak xamal ko ne ko bi nga gàddaay yàgg na te naa nga ma taxan nga gàddaay kon ñibbisil bokk innaka naka yow yaa waalidi raxalta laxasoon nga mooy tukki woon nga ilal mahjari jëm ca réewum jaambur ma wala jëm ci gàddaayukaay ba muy réewum étranger talaban ngir sàkku lu risque ñeel wërsëg wakti saa bi tarwati ak fàggu koom-koom wala sa li sukk naa waaye du woon ngir dëkk ak daa imati guy aji sax fama lii ana lu ma ñeel mooy ana lu tax man araaka ma lay gis waxadu nil te am nga maa la nga xam ne taman nay taxoo mébatoon nga ko minal xinaa ci am koom laa tasaal doo dañ te tamassaku di jàppandu di ardin ci suuf soo xam ne lay sat arda abaika du suufas say baay dane ko sama baay bi ngay bàyyi ko fii dem ci réewum jàmbur moomu bëgg wërsëg ak koom-koom rek moo la fa yóbbu woon waaye demoo fa woon ngir taxu fa dëkk fa di wéy lu tax nag ma gis ne yow léegi la nga wuti woon muy alal ju bari am nga ko an lu tee nga ñibbisi ci suuf si nga xam ne mooy sa suufu say baay ak say maam yaa ngi jàppantu rek ci suufu jàmbur soo xam ne moom da nga fee ñëw rek am loo fi wut waaye du sa suufas cosaan taaniyan nag xusoolu waalidika xalaa tarwatin taa'ila dararatu tanaxumi biha fi ardil watan donc bi ci topp da ciy wax ni bàyyam amee foofu alal ju bari ak ni war a ñibbisee nag ci fii mu cosaanoo xewloo fi alal ji te bañ koo xewloo ca réew moomee mu gàddaayoon rek nekk fa innaka naka yow yaa waalidi yow sama baay asbaxta xëy nga ba idan di aji sori wa ba idan tey aji sori jiddan lool anil faqari walis ñàkk walasta te déet yow muxtaajan ngay aji aajowoo ilaa kasbil maali jëm ci fàggu alal baadal yow mi ci gannaaw tey naka naka yow bi xaajati nekk nga ci aajowoo ila tanaumi jëm ci xéewlu bi haadihi l amwaali ci lay alal allati yi nga xam ne jamaataxaa dajale nga leen walan tatamakkana te doo jekku min tanfiidi zalika ci wéyal loolee illa bayna awlaadika ndari diggante say doom wa ahlika ak sa ñooñ wa asxaabika ak say àndaale ay li ma ci namm rek biru jooxi ka ci sa dellu si illa ardil watani jëm ci suufas réew mi dane ko sama baay ci dëgg-dëgg léegi moom sorante nga ak ñàkk li nga am ci alal moom mën nga cee jàpp soxlaatu la di sonn ci wut alal léegi kay noppalu xéewloo li nga am moom nga war a seet noo koy defee te loolu bala nga koo mën dëgg-dëgg ñibbisi ba fii nga cosaanoo nekk fekk say doom ak sa waa kër ak say àndaale xéewloo li nga am daal ñibbisi fii ci nga cosaanoo rek nga koy mane taalisan daawatu waalidika ila lubnaan xasanaatu haasihi daawa li ci topp mooy nga wax ko ne ko daal ñibbisi liban lubnaan mooy fi ñu taalife téere bi wax ko itam baax baax yi nga gis ci li nga ko wax mooy ci woo ko mu ñibbisi du ko defee lam cay gis na xam waaw yaa waalidi yow sama waajur wi alxasiisa wi aji foor anaaman addu xooka danaa la woo lil xawdati jëm ci dellu si ilaa lubb naana jëm lubb naan masxati rësika mi rotukaayu sa bopp buñ ne masxatu rësi mooy village natal maanaam dëkk ba nga gane àdduna wa majmaxi ahlika ak dajewukaayu sañoñ wa asxaabika ak say àndaale addu xooka maa ngi lay woo ilaa lubb naan kay tanaama ngir nga xéewu bil xay ci dund ba maxa awlaadika ànd ak say doom wa waalidat yi ak sama yaay al mahbubati ka di kuñ sopp addu xooka maa ngi lay woo ilaa lubnaan muhaafazatan ngir sàmmoonte xalaa sixatika ci sa wér yaram addu xooka maa ngi lay woo ilaa lubnaan li inmaa i tarwatika ngir dolli sa koom-koom bistismaaril mashaarihi ci investe ci projet yi alkubra yi gën a mag ëllëg yi nga xam ne yaa gisu dana lottu alwatanu réew mi al ummu mi yaay xanil xiyaam waris taxaw ga bihaa ca ñoom istismar mooy baat bi firi sàkku meññet xam ne ñett tomb lay doon nekkul sin sutooy ñu koy wax nag investissement maanaam jël sa alal def ko ci loo xam ne mën na caa yokkoo ni ki ñuy sos xeeti ay projet ni ki ay usine wala yi demee noonu nga bokk ci ña cay def seen alal ndax la cay amee ci bénéfice nga am ca dara sa alal ji nga xam ne daal yow mel na ne ëpp na la capital mbaa mënoo cee liggéey nga def ko ci xeeti projet yoo xam ne moom sa alal dana ca yokkoo loolu mooy istismar dane ko man daal li ma bëgg li ma bëgg daal mooy nga ñibbisi ci sa dëkkub cosaan bi mooy libaa fi nga juddoo say mbokk ak say àndaale fa la ñu nekk boo dikkee nekk ak say doom ak sama yaay ju baax ji man am dund gu neex ànd ak jàmm te it dama bëgg boo ñëwee libaa lu bokkut ak sàmmonteeg si réew yaram ni mu koy mënee fii xeeti projet yi nga xam ne réew mi mi ngi koy jéem a taxawal te jëm réew mi ci boppam amul alal ju ko mën a sottal yow nag nga jëmale ci sa alal bu ko defee dimbali projet yi réew mi jëm kanam yow itam sa alal yokkoo ca loolu daal laa bëgg nga def ko an nihaayatu nag yemukaayu bataaxel bi mooy addaawatu alxitaamiyatu wa tamaniyaatu dellu ko waxaat ci lim ko njëkkoon a wooxe ba noppi itam nag ñaanal ko mébital ko xéewal ak jàmm kon fa ilaa ardil watani jëm ci suufas réew mi daal addu xonka laa lay wooye yaa waalidi ilaa ardil abaa jëm ci suufas bàyyi wal ajdaadi ak maam ya wal ixwati ak mbokk yu góor ya wal axawaati ak mbokk yu jigéen ya waslam yàlla na nga mucc li wala di ka ñeel sa doom ji al mutihi ji aji topp moo ji lay aji nangul al mutihi ji aji topp mooy ki lay nangul lool rek allësi ki nga xam ne laa yenn saaka du la fàtte wayeta shawwaqu te muy yuqamtiku wala te muy soppaka namm li yow mi ñeel bis ba allësi bi nga xam ne yaraaka daan la gis fii ci moom bayna ahlika diggante sa waa kër wa ixwaanika ak say mbokk kon nag saa baay maa ngi baamuwaat laa waxoon ñi bisil ci réew mi nga xam ne mooy sa cosaan say maam ak say baay te lañ cosaanoo ñi bisil te bul ko wàcc maa ngi ñaan nag yàlla bàyyi la fi nga ànd ak mucc ndax loolu saa njariña man sa doom ji nga xam ne dama laa déggal duma la fàtte mukk te maa ngi yàkkamti àgg ci bis ba nga xam ne ci laa lay njëkk a tege bët nga ak suñu bisi fii ci lubbu naan sa waa kër ak say mbokk wër la ma teg la bët daal bis boobu moom lu ma yàkkamti la bëgg rek mu daal di gaaw bañ a yeex daarul bari di këru poste bi mu jëkkee mawqi'uha palaasam taqahu dana tàbbi mooy dana nekk daarul bari di këru poste ba fi ihda saaxaati ci benn ci palaas yi alhamati yi public laxaa ñel na ko it furuuxun ay bànqaas wala ay section wala ay succursale fii ahyaa il madinati ci quartier yi dëkk bu mag bi kama laxaa ni ki ma ko ñeele furuuxun ay bàngaas fil qura ca dëkk yu ndaw ya muy village ya tey njëkk wax fii poste bu mag bi nekk mu ne poste bu mag bi moom mi ngi ci benn ci place yu yaatu yi ñëpp bokk du tee nag mu am yeneen yu koy jëmmal du tee mu am yeneen biir yu koy jëmmal ci quartier yi ci des ba sax boo demee ci yenn village yi daañu di am këru poste gu ndaw goo xam ne ma nga taq ca poste bu mag ba wasfuha ak melalam moo ci topp te ta àllafu dana composé woo daarul bari di këru poste bi min iddati xurafin ci lu bari ci ay néeg ay sàmbar wa min finaayin ak ci ab kuur mi ab ëtt waasix bi aji yaatu yóbbu naa def na tabax xawla xismin ci li wër ab xaaj minal finaay ci kuur ba jidaarun ab miir wala aw sàkket xashe bi yun mi ko jóg dénk fii boog nekk na ca sanaadiqu ay buwaat laxaa yooyu ñeel na leen ab waabun ay bunt ab waabun muq falatun yi duñu tëj yabaw dana teg fiihaa ci ñoom mu war daful bëri di fonctionnaire yi poste bi wala employé yi poste bi rasailal mustarikina leetari way abonné ya li kulli sunduqin ñeel na bépp boîte raqmu numéro kama li kulli sunduqin ni nga xamé ne ñeel na bépp boîte sahibun ab borom xaasum bi spécial këru poste bi nee na day bari ay néeg am nag ay néeg yu bari lay doon am itam benn ëtt ñu ko wax kuur bu yaatoo yaatu boo demee nag ci ak wet ci kuur boobu muy ëtt boobu def nañ fa lu mel ne ab miir waaye nag du miiru tabax ay dénk lañ ko defare rek def ca nag ay buwaati buwaat yoo xam ne buwaat bu ne dañ koy tëj buwaat bu ne am na bunt ñu koy tëj day fekk nag am ñu abonné ci poste bi jël fa buwaat spécial nga xam ne luñ am rek buñ dikkee dugalal leen ko ca kon ñi liggéeyee ci poste bi ñooy jël nag lu jëm ca buwaat yooyee ci xeet leetar yi dal ko cay def kenn ku ne rek bu abonné ci poste ba ëbb ba ubbi fa boîte postale bu sa leetar ñëwee rek ñu yóbbu la ko tegal la ko ca boo dikkee yaayoo sa caabi yaa koy ubbi daal yóbbu la nga ca fekkoon boîte bu ne am na numéro boppam boîte bu ne am na borom bu wér boo xam ne moom moo ko féetewoo laa yesta jiru du faral di jël wa istajra bi firu luy rek mooy du faral di jël sum dookal bari di boîte postale ci wat tujjaari lu may commerçant ya allazina ña nga xam ne tatihim dana leen dikkal rasailu ay bataaxel kathirat yu aji bari wa mustajalatun tey yu ñu yàkkamti di ci ëpp nag ñi faral a jël boîte postale nga xam ne ñoo koy jagoo mooy commerçant yi nga xam ne dañuy faral di am ay bataaxel yoo xam ne day tegaloo di bari tey nekk yu ñu yàkkam ci bëgg caa gaaw a jot bay ut tawaabiyan jaay tembar ya fii xismin ci ab xaaj aaxara baneen minel finaay ci kuur ba muy ëtt ba tuqaamu def na taxawal xurafun ay sàmbar ay néeg saxirat yu ndaw tushrifu yi danañu tiim xal finaay ci ëtt ba min nawafida ci ay fenêtre wala nga ne ci ay gisee saxiratin yu ndaw yajlis dina toog amaama kulli navidatin ci kanam bépp gisee muwazzafun ab employé wala fonctionnaire yukta bu def na bind xalaa lawxin ci ab tableau zujaa jiyin bi ko jóg weer maanaam bàyyi ko ci weer amalu kulli muwazzafin liggéeyub bépp employé fallasi ka nga xam ne yeb yoon dana jaay ak tawaabi a tembar ya yata sallamu dana jël arrasaila bataaxel ya minal mursilina ci way yónnee ña ay bataaxel yasiluhaa dana leen peese fii misaanin ci ab balaas xassaasin bu sensible maanaam bu xarala xarala boo xam ne daal du wàcc dara lu dara tuuti tuuti dana feeñ ci place bi mooy xassaas yuqaddimu dana jox lahum ñeel leen ab tawaabi en tembar ya yan xuddoona xoo danañu ko fay samanaha njëwug tembar ya yul si xoona danañu kole ab tawaabi xa tembar ya xala risalati ci kaw bataaxel ba yatawajjahoona danañu jublu ila sunduqi taxaariri jëm ci buwaatu leetar ya yadaxoona danañu teg ar rasaila leetar ya fi sunduqi ca buwaat ba mu ne day am ak wàll goo xam ne ci kuur ba dañ faa def ay néeg yu ndaw su ko defee nag néegu ndaw yi dañoo tiim kuur bi ëtt bi fu ca nekk am ab fenêtre wala nga tudde ko gisee fu ci ne am na ab gisee boo xam ne am na employé bu fa toog am na kuy liggéey ci poste bi ku fa toog tey gisee bu ne dañuy bind foofa tableau tableau bu weer lay doon gise bu ne am na tableau bu bàyyikoo ci weer ñu bind ca liggéeyu employé bay toog foofa nga xam ne boo jàngee mbind mu daal di xam ne ki nekk fii nangam lay liggéeyee am na gisee boo xam ne kii jaay tembar yi moo fa féete nga xam ne boo dikkee booy jël leetar bi xool ko daal di koy peese ci balaas boo xam ne bu sensible la nu bataaxel bi diise rek dana feeñ ci bu ko peesee daal lay jaay nag tembar yi nga xam ne moom nga ci war a kol nga daal di koy fay jël nag tembar yi mu la jaay kol ko ci kaw bataaxel bi dem nag yóbbu bataaxel ba dugal ko ca duwaat ba ñu def lettre yi xismu toroodi xaajub koli yi koli yi mooy yi ñu yónnee ci poste bi def ko ay koli mu def ay takk section koli ya fii naaxiyatin ci ab côté taalisatin bi aj ñetteel ñu ne finaay ca kuur ba muy ci ëtt ba fii naaxiyatin nekk na ci ab côté taalisat bi aj ñetteel mi ne finaay ci kuur ba xurafun ay néeg yottalaq yooyu def na jëmale ala majmuhiha ci mboole seen yottalaq mooy bi ngay firee def na boyal rek benn la ismu daairati turodi turu serkalu